wallaay ndeysaan ndeysaan parce que moom aussi itam ci ginnaaw la toogoon. mais nee na mm-hmm. moom bi mu yeewoo ñi mu dendaloon ak ñëpp a dee. billaahi kii kii kii kii ci boppam man man man. da ngay xam ne kii ni muy waxee. mooy mm-hmm. loolu ko moom sax wax na ko nee na man nekkuma fi. gisoo mm-hmm. nee na bi mu pare am na ci ñoo xam ne maanaam chaise yi. ñoom ñoo këpp ci seen kaw. Oh. nee na moom ak waa dëkk bi bi ñu ñëwee moom ci jëmi boppam blessé na mais teewul mi ngi jàppale ñeneen ñi pour ñu mm-hmm. sauver ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa de mais moom ñi mu toogaloon ci ginnaaw ñëpp a dee amul mm-hmm. kenn koo xamante ne dund nga ci men na moom kese mm-hmm. mais nee na moom ñi mu toogaloon ñii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp kenn dund ci ñëpp a dee mu nekk lu doy waar loo xamante ne Ali ah, vidéo bi bi ñu ko seetaanee sa yaram daw na waa ji waa ji waa ndeysaan moom mu bokk ci ci ci gaañ ba pare après xam nga blessure am taxu ko demee noonu. Mhm. jóg na di jàppale ñeneen ñi nga xamante ne ñoom tamit ñàkk nañ seen bakken wala ñu am ay gaañu gaañu wax naa la dem si vidéo yi da gis gis euh, bi leen sapeur di génne xam nga sénégalais lu am day day am ñoo xam ne dañuy gaaw daar daar gi foo nu génnee seen téléphone filmé. Mhm. Mm. maa ngi ko gis ci TikTok. waaw waaw waaw yi dugg di leen génne. ku jigéen am na ci doon filmé maire bi mu ngi tëdd maa la koy. Oh. am na xale bu góor. chaise bi naj na ko. kooku mhm. ga kooku décédé na mais mi ngi sànni loos bi na rek xam nga yooyu dafay ne wax naa la da ngay gis ñoo xam dañuy yëngatu. mu mhm. génnee seen bopp mais day fekk seen cër yi dagg damm na. mu oh. ñu baal ma parce que ban yi moo leen fekk da leen di coincé ak yooyu. Oh. kon kooku foog mu jóg pour mun a dimbali ñooñu ñu xool nu ñu leen génnewee gaaw gaaw ndax mettit gi nu mu nu mu méttiwee. Mhm. li li ku ko dundul lekk mënoo ko nettali. métti mhm. gi dafay yem ci imagination bi nga xam ne dina koy am. Mhm. man imagination bi nga xam day ñëw sama bopp à chaque fois mooy le fait que imagine toi nga fekkee woon premier coup bi teel ji loolu beneen affaire la. Mhm. mara de parce que parce que Nana euh, le gars il était courageux bien vrai que de moom ci accident bi la bokk. ñi mu ñi mu ñi mu nekkaloon ñëpp décédé nañ. mais teewul bi waa dëkk bi ñëwee. moom mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ànd ak ñoom di jàppale ñeneen ñi nga mhm. xamante ne ñoom ñoo coincé ci biir mhm. mais nee na ci am na ci ñoo xamante ne da ngay gis ne seen tànk dagg na parce que tel moo ko ni bàyyi am ñoo xam ne seen loos bi ni muy mel tel moo ko ni euh, doo mën a imaginer mhm. mu nekk loo xamante ne lu méttee métti parce que métti bi ni mu koy waxee dangay xam ne kii dafa dund lu métti te aussi tamit le fait que yow nga nekk ak ay nit ñëpp dee yow kese nga des ci loolu noonu séquelles yi mu lay bàyyil doo xam yan genre séquelles yi yaa wax nga moom la ñuy revenir aat rek di ci di di ko waxaat ci kaawu kii nii muy euh, euh, cest à bu ñu paree ci lii à part euh, deux cent millions yi nga xamante ni président yëkkati na ko. na quarante millions yi. ak waa quarante millions yi Serigne Mountakha yëkkati. nañu nañu leen defal ay ay soins psychologiques. Mm. parce que c' est très très important parce que kii ni muy waxee yaa ngi koy dégg moom dégg nga ko mu ne sama yaram bi yëpp da doon metti may miir. sama bët bi aussi lépp deret la woon mais taluma woon sama bopp ce qui veut dire que tiitaange bu la jàppee yow yow ci sa bopp doole ji ngay àndal doo ko xam yaa ngi dégg kon euh, euh, c'est-à-dire euh, nañu leen ñaanal ñoom aussi ñu ñu ñu ñu ñu tane ci ak jàmm wér ci ak jàmm ba ba dara dootu leen gàllankoor mais aussi jot na ñu ñu ñu ñu ñu utal leen ay cicatrices parce que bari na ci ay moroom koo dégg mi ngi naan dama doon miir ba dem na sax ba ñoom ñii mënuñoo expliquer accident bi ni mu demee réellement. ni mu demee réellement mënuloo ko mënuloo ko xam parce que euh, tellement que métit bi toll na foofu rax ci dolli ñi ci amul ay gaañu gaañu euh, euh, cest à ñi nga xamante ne ñoo ci am ay gaañu gaañu sax ñoom da ngay dégg ñu naan maa ngi dama doon miir sama yaram da doon métti et tout et dem ba cest à pour ñu pour ñu dindi nit ñi fa ñu nekk c'est tout un problème mm-hmm. Euh, accident bi méttiwaay bi foo ko natt rek weesu na ko foo natt métti maanaam waxu métti sax waxatuñ ko donc nañ leen utal ay soins psychologiques ay psychiatre yoo xamante ni dinañ leen mën a mën a mën a mën a defal ay ay ay soins euh, pour que vraiment ñu delloo si waat ak euh, seen xel donte fàtte mbir mu ni mel du yomb. xam tamit lan mooy gën a métti sogu bi Mm-hmm. bu bus yi du xam nga defaruñ ko fii ci biir réew mi dañ koy jëlee Europe andi ko fii. chaise yi fii mm-hmm. dañ koy buy jógee Europe di ñëw fii mun na nekk trente places ou vingt cinq places mais bu ñëwee fii dañ koy modifier ba mu ah, nekk soixante cinq places. dem ba soixante douze léegi. parce que léegi boo xoolee ni ñuy toppantee. bi ci mm-hmm. kanam bi ci ginnaaw distance bi du du toll nii yow sa tànk boo toogee sa sa oom yi day day day day laal ki nga ki nga xamante ne moom moo nekk ci sa kanam mhm. xam nga biis yooyu Serif Diame du du ci toog Serif mi ànd ak maire Aïssatou Penda mënul mhm. dugg si biis yooyu parce que o o mi Serif Versailles bi mooy moo koy arrangé sax voilà Versailles bi sax Serif day Serif xam nga ñoom xamoo ko da ngay da ngay doog a ñëw da ngay def ndànk ku ñu wax rek bu émission pare nga laaj. kan mooy jiw mu wan la waaw. <laughs> Ah. Chérif ñëw rek xam ñëpp. mais moom nee naa bàyyi su ma nga may dagg. Ah, léegi dafay dafay jege que ni mooy mooy indi bu choc amee nit ñi di tàncaloo noonu. Mm-hmm. danga oh. gis koo xamee ni waroon na mën a génn sauver boppam mais dafay nekk ci ay xat-xat ay xat-xat ba loolu daf oh. koy mujj yóbbu mu ñàkk ci bakkanam. Mm-hmm. vidéo bu mel ne da ngay gis ñoo xam dañuy jéem doole pour génn mais mënuñu ko. Oh. selon nit ñi nga xamante ne coincé nañ noonu. dafa nekk loo xam ne lu doy waar la. boole ci bagage yi fekk si leen ci biir. ba yi. nga nga yab su su suukar. suukar nettetu. ay laalo ci biir mm-hmm. laalo mm-hmm. mandarin jaangi lu ne lu ne gis nga. fruits yeeg yëpp légumes ko yëpp yëpp day nekk ci biir bus bi sa yére ak lool xam nga day nekk loo dafa doy waar lool. Mm-hmm. foog ñu jël ci ay mesures. di jël bus yi di xaj xajal di def ay cinq places ak loolu. Versailles léegi xam nga bus bi léegi ñi ko def bu dee cinq places la ñëpp dañuy toog. chauffeur bi toog léegi apprenti yi ànd ak chauffeur si dañuy mat juróom ci biir biis bi ñoom ñëpp du juróom yëpp duñu am place da ngay gis kuy taxawee dëkk dëkk ñenn ñi yéeg ci kaw tëdd xam nga loolu bu bu du lu mel ni amee rek pour jàpp naa ni sa ñi nekkoon sëfoor ci biis bi ak apprenti amul kenn ku ci mucc. Uh-huh. ci ci li ma yaakaar amul ci chauffeur ak apprenti ku ci mucc. ñoom ñëpp dañu ñàkk parce que uh-huh. fi ñuy taxawee la. Uh-huh. bu nit ñëpp toogee ñoom dañuy ñëw taxaw ci wetu chauffeur bi noonu loolu la ñuy jàppee mhm. waxtaan woon ñeneen ñi ne ci kaw. foofu lañ tuddee jàkka ji. Mhm. waaw kay loolu moo tax bu yooyu amee dafa day nekk loo xam day métti lool lool. Mhm. foog ñu ji jëlaat bu al bu ñu séenee alkaati nag d'une part erreur dafay am ci ñoom chauffeur ci ak apprenti. bu ñu séenee alkaati ci kanam. parce que wax naa la dem ma ne la fu montage am dañ koy xam. dañu ko bu ñu demee ba waaj a yegg fa montage ba am ñoom ñëpp dañuy préféré ñu toog ci suuf wala ñu xool neneen. ñu def mhm. du ñu taxaw ñu yéeg ci kaw fi bagage yi di nekk. voilà bu ñu rombee bu ñu rombee montage bi daal di jógaat. Mhm. loolu tamit loo wax nañu def ay montage montage chauffeur ci tamit ak apprenti yi loolu erreur boobu tamit ci ñoom la. waaw nañu loolu nañ ko wax passager yi tamit passager yi dafa jot. parce que man je me rappelle màggalu lu Touba bii passé euh, damay gis ay ay ay ay euh, ay tata yoo xamante ni euh, c'est-à-dire à part place yi nga xam ne tata yi am na ko. dañuy teg ay chaise yoo xamante ni su bu oto bi defee benn benn benn cest à bu mouvement rek yow mën nga déplacer wu wala nga daanu te loolu sa à dire dëli gën mënu ko paase dëli mënu ko paase tamit c'est-à-dire. fowee sa bakkan mu weesu loolu parce que yow imagineel bëgg naa dem euh, ak feneen nag euh, dama dama ko jox eh, dama ko joxe exemple ci màggalu Tuubaa kese mais am na feneen foo xamante ni bu ñu fay dem comme que place yi matul nee nañu euh, mënoo dem fii ak bërëb sàngam def voyage long voyage te place yi bari wuñu cest dire ñoom loolu la ñuy sooraale ba ba ba dañuy fowee bakkanu nit ñi à la yow loolu nga koy jàppee quoi parce imagineel ñu teg ay chaise yoo xamante ni chaise yi amul fenn foo xamante ni rek mën nga fa wéeru wala nga jàppandu fa bu le bu bu au cas de euh, cest à bu cas meloon ni amoon tey ji kon ay jëye yu yu rëy lay indi kon passager yi jot na aussi euh, ñoom it ñu xool bu baax a baax a baax oto yi fan la ñuy dugg ak ci yan oto la ñu war a dugg ak yan place la ñu war a toog vraiment parce que tey jii bu fekkoon bu fekkoon ne euh, jëye jooju moo moo moo am tey tombeeg chaise yooyu kon kenn waxtu ko kon kon kon maara day taal kon kon dinañ dinañ lim dee yu gën a bari yi te maa ngi gis beneen accident bu am euh, fële euh, dama fàtte dëkk bi démb Feeling Dakar mi ngi koy wane. côté Daaru Muxti la mooy ñu suuli ñu demoon yóbbu néew bi di retourner par kii. mi ngi noonu kon sa diir mooy li ma wax rek nee naa nee naa nee naa lañ jóge dañu ñëw ba génn daaru muxti noonu côté côté Njaañ bi fa la fa la oto bi këpp mi ngi noonu mooy nee na benn benn benn nee nañ chauffeur bi lim doon daw moo bari dégg benn benn charrette di traversé mënatul te li nga xam ne moom moo di baar bi mu renversé li mu nekk lu doy waar mu mu doon lu doy waar yow accident mi ngi am ba ñu def day national day national bi sax yeggagul ca durée ba ñu ko àpp muy trois jours yi yow nga nga nga nga ngay dawal daw vitesse bu baax rawatina nag. nga yóbbu néew nga yóbbu néew boo xam ne ci accident boobu ñuy ñu tax ñu euh, waral euh, deuil national bi moom nga yóbbu woon di dëpp faf accident boobu am xam nga tamit ñenn ci chauffeur si ñu baal ma mais vraiment xam nga wax ji boo ko yërëmee rek doo wax dëgg ñu baal ma mais c'est-à-dire joxuñu ak liggéey bi ñuy liggéey joxuñu ak doomu aadama yi ñu yab joxuñu ak également ñoom ci seen jëmmi bopp bakkan bi nga xam ne yor yàlla dénk na leen ko mais man euh, la question que je me pose mooy ndax chauffeur yi ñu ngi bàyyi xel seen njaboot lañu bàyyi ci kër ga parce que ku bàyyi sa njaboot ca kër ga di leen bàyyi xel di nga bàyyi xel ne ki ma yabkat war na am yaay am na papa am na doom ju koy xaar ca kër ga kon tey jii bu fekkee wala bokk man ma am respect ci sama bopp ba ne ah tey jii kat su fekkee daw naa vitesse bu accident di am man maa ci njëkk ñàkk sama bakkan wala mën naa bokk ci ñu ñàkk seen bakkan wala ñu am ci ay gaañu gaañu te bu boobaa hôpital la may dikkee te daw dépense. di daw dépense ba mujjee hôpital am na lu ko gën. Mm-hmm. des fois aussi tamit passager yi am nañ ci benn part de responsabilité. parce que maa ngi mm-hmm. seetaan koo xam ne moom tamit ci rescapé yi la bokk. mi ngi naan moom bi mu ñëwee fekk na bus bi dafa fees mais dana leen bàyyi leen ma rek ma ma ma taxaw nii. Ah, gis nga ko moom dafa foofu la dafa dafa xaj-xaj lu ba xaj. bus bi fees na doo xaar beneen bus mais moom dafa xaj-xajlu xaj ba xaj euh, mm-hmm. ci li nga xamante ne moom moo di loolu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, chauffeur bi jóge woon Kédougou Kédougou aussi tamit moom mi nga xamante ne moom moo si ñàkk bakkanam moom chauffeur boobu ak ñetti apprenti yoo xamante ne même famille lañ muy famille Ndiaye ñaar ñi ay doom baay lañ yeneen ñaar ñi ay doomu ndeyam lañ mu nekk lu doy waar seen beneen frère bi bi mu ñëwee di jël si li nga xamante ne moom moo di koor yi dangay xam ne kii maanaam ñoom famille lañ ñàkk parce que quatre personnes boo ko génnee ci famille te ñëpp ñu bokk même même même même famille bi ñii day ay doom baay ñii di ay doomu nday mu nekk nit yu lu xamante ne lu méttee métti métti hmm. métti métti parce que benn benn benn nit rek boo ko ñàkkee si famille euh, famille bi yëpp nuñ koy jëlee waxantuma mhm. laa quatre morts yoo xamante ne te am nañ mhm. yeneen yoo xamante ne ay blessé lañ yoo xam ne mhm. bokk na ci li nga xamante ne moom moo di seen famille bu ne mu nekk loo xamante ne lu doy waar la franchement euh, déggoo li ma la wax sànq man dama dama dama keef quoi parce que le fekk euh, ngay déglu au fur et à mesure ngay déglu yow da ngay dégg loo xamante ni mosuloo ko dégg à la fin parce que imagine kii ki ki euh, ay mag rakk sax bu fi kii deewee semaine ke kee dee beneen semaine bi ci topp sax dafa metti waxuma mu ak deewandoo benn jour donc vraiment accident bi moom accident bi moom yàlla na fi yam parce que lu mettee nii man je ne l'ai jamais vu je le dis et je le répète je ne l'ai jamais vu de ma vie. te côté boobu aussi tamit musuma ko tali bi dafa xat tellement que ni ñaari oto. Mhm. munu même bu fekkoon ne pëno tojul dara tojul mhm. ñaari oto munuñu rombante si sinon ko benn bi dina wàññi mhm. ba may kii parce que tellement ko nii autoroute boobu noonu ni mu mel route nationale bi mhm. dafa xat mais am na kuy wax aussi lu am importance mooy saalum saalum bi waaw am na benn saalum saalum buy wax lu am importance parce que nag quoi qu'on puisse dire ñun sénégalais lañu te dañoo am suñu ay réalité euh, mi ngi naan euh, tali bi feek mi ngi foofu feek mi ngi foofu accident du fa mës a jóg parce que dafa am lu fa dëkk euh, kon c'est-à-dire euh, buñ ko gëmul à 100 pour cent aussi nañ ci bàyyi xel parce que quoi qu'on puisse dire maa ngi koy répété waat dañoo am suñu ay réalité ñun sénégalais yi mm-hmm, li fi maam yi bawoon ba léegi mi ngi fi saa à dire da ngay jékki-jékki gis ab yoon boo xamante ne danga naan tali mën na fa am wala mën naa faa sampub kër wala mën naa faa sampub garage wala leneen ak leneen fekk am na loo xamante ni amaana dëkk na fa ak ay bokkam est-ce que dégg nga ma bu baax. Mm-hmm. Euh, il l'a bien dit. Mm-hmm. Euh, fekk ñu ngi tali bi mu ngi fi accident du fi jóg ndax yàgg na fi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. Euh, tali bi lu mu xat-xat moom wax na ko tali bi lu mu xat-xat-xat-xat am na tali yu ko gën a xat kon aussi yaatalaat tali yi jot na waaye tamit xool fan la ñuy def suñu ay tali mm-hmm. xool tamit fan la ñuy dagg yoon c'est très important parce que fi nii maa ngi fàttaliku Euh, bi ñuy dagg autoroute à bi am na benn benn yoon boo xamante ni euh, dañoo laal ay xàmbi jàmbur je me rappelle très très bien je veux pas dire xàmb yan la mais mais mais mais mais man xam naa leen bu baax a baax a baax barki Cheikhul Khadim xàmb yooyu bi ñu bi ñu ki ko doon gas ki doon gas côté boobu ci boppam dafa dof wax na ci ci ci internet yi na ma yàlla jéggal euh, ñoom itamit ñu jéggal ma ci kàddu gi ma yëkkati mais dafa ñàkk boppam yaa ngi dégg dem na sax ba mujj gi dafa dafa dafa ñàkk bakkanam comme ci ci loo xamante ni tey jii ay réalité wu Sénégal la ay réalité wu yoo xamante ni la suñu ay maam ñoo ko fi bàyyi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax xool fan la ñuy dagg yoon yi te bu ñu daggee yoon ñu yaatal ko ngir benn jot na sax deux voies yi nga xamante ni def nañ ko fii ci VDN bi te pourtant terewul accident yi di am mais dina ko wàññi un tout petit peu dina ko wàññi. ñu def ko ci ci ci yoon yi nga xamante ni am ay frontières yoo xam ne parce que boo paasee Kédougou am na mhm. yeneen ki yooy dugg. Mhm. pour que ñu yaatal ko. benn mhm. espace bi ñuy bàyyi foofu aussi tamit ban njëriñ yaa ngi wax lu am solo. parce que waa ji bi muy wax moom foofu la dëkk xam na. te mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jël témoin ñi dëkk foofu aussi tamit. nee na moom li muy wax xam na foofu noonu du du du du du du. du la première fois du la dernière fois mu di fay am imagine nee na am na loo xamante ne moom moo fa dëkk Sénégal dañu am suñu réalité bopp aussi tamit nee na même su fekkee ne taliba mënu fa jóge nañ na nañ am yoo xamante ne dinañ ko fa def parce que des fois aussi tamit. Euh, jóg fa daal moo gën ñu ñu ñu ñu ñuy defar dara ñu gaañ. ñoo xamante ne dañ fa dëkk. ci mm-hmm. seeni njaboot. te loolu aussi tamit ñoom da leen di. jaral dal na ay nit ci ci ci péage bi ma waxaat ko. Mm-hmm. ci bii nii. daf leen ñu laal ay xàmbu jàmbur kooku ki ko laal ci boppam dafa dafa dafa ñàkk bakkanam ba ay mbokkam di ko ñaanal euh, ay ay ay ay kii luñ ko fajee. fa ba finalement dafa ñàkk bakkanam donc nañ ci xoolaat bu baax a baax. Mhm. loolu la parce que gisoo rond point bi ñu bi ñuy bi ñuy tabax. pont bi samay xam bi maam la ñoom lebu yi. Euh, foofu samay la de. Mhm. Mm, da nga ngembe ngembe gi nekk Bambey. barke Cheikhul Khadim bi ñuy laal péyage bi lañ ko laal. waaw léegi doo wax seen xamb yi la rek. waaw mais léegi comme que nag <laughs> comme que yow. comme nga damay laqatu léegi ma wax ko en en direct. samay xam bi maam la sérieusement. voilà man man ngay wax loolu. Eh, ah, gis nga gis nga gis nga nu mu tudd yoof bi ñuy tabax pont bi fii nii Diouf Sarr boobu mm-hmm. moom ci jëmmi boppam tuural na ko parce que moom xam na seeni réalité parce que lébu yi mm-hmm. seeni ndëpp ku nekk mm-hmm. ak ah, bu affaire yi daal da ngeen ko bëgg a yóbbu foofu wax ji koy wax rek réew mi bu dee yooyu am na comme ni ñu koy waxee weddiwu ma ni tamit ndax amul ndax doomi tuur boo ko weddee foofu lañ lay fekk pour rab yi rek yow eh yow eh man doomu tuur laa de amu ah, ngi noonu kon tey yow mënoo koo weddi. yi nga ay xàmb nii. Mhm. suñu kër Medina bu mag moo fa am. wax kon tey mënoo ko weddi. ah yow yaa wax waxu weddi kon mënoo ko weddi. dama lay ay wayal ay wayu ndëpp léegi barke yonent yàlla. ma la ay wayu ndëpp maam yàlla na ko yàlla yërëm. lay mhm. ndëpp. déggoo ma de ñu ngi ñu ngi waaj nii ndëpp bu am jom. ñuy jamono ji insha allah léegi rek ah, tata ah, ndey kon buñ ko weddi naan mënu ma ko weddi man dama làkkatu làkkatu yi ngay eh. bàyyi yow itam Ami kii pour nga xamal ko xàmb yaa ngi suñu biir kër. xàmb yaa nga bàmbay man. suñu kër waaw dama lay bàmbay daa sori man dama lay suñu biir kër. waaw ñii Medina. waaw barke yonent yàlla Muhammad caaxaanu ma nag dama lay wax. man aussi caaxaanu ma di. waaw dañu am dañu am garabu guy bu mag ci biir kër gi. man it dañoo am ay garabu guy. ay garabu guy waaw da am ay. garabu yu mat waaw dimbali ma seen rab yooyu dañoo fajati kenn. Hmm. ah. man doogu tuur laa de. <laughs> dama lay wax loolu tamit. dama lay wax lu lu lu leer doomu tuur laa ñun maam day am dana am tuur ñu dugg reyal ko bëy wala ginaar yooyu. dama lay doomu tuur laa de. lu mel ni mi di laa la wax. barke mhm. Alxuraan sama xarit bi maa ngi koy nuyu au passage wëli wëli. wëli wëli jinne sababu jinne jinne xëy na minum nuyu rek. wëli wëli xam naa yéen xamu leen wëli wëli mais bis dinaa leen andil wëli wëli dinaa ko wax shérif. chéri sama doomu ndey la man nag ay maamu pël laa yor kaba saw maam booy sëy sa lay nuyu kaba saw tuur barke Cheikhul Khadim ñun ñii dañuy ndëpp ngóor ngóor su suñu rabu kër maam ngóor la tudd mhm. way way wi dama ko xaw malaan ab xëy nga préparé ma beneen vidéo rescapé yow nag say maam fu ñu ne dañuy ndëpp lëg daaru mbay wala yow